leneen nag du leneen parce que lu nit di togg di ko xalam ci xelam di ko nas ci téere loolu boo ko mënut a dakkal mënoo dakkal une entité boo xamante ne c'est juste de formalisation loolu cest à koo xam ne bind na ñetti livre ay idéom day des fii day des mais ku mel ni Toussaint Manga ku mel ni Papa ñoom tamit démb bërki démb ñu jàpp leen bon d'une manière bu mel ni dafa yomb seen jàpp bi amoon na raison. non Toussaint man xool naa page Facebook am moom manifestation yi la doon relayer après mu ne nee nañ ma naa arrêté yi may relayer du ma ko arrêté man donc xam naa ni foofu la gars yi jaar jàpp. lañ jaar waay waaw. parce que lui moo doon dugal ay VDN bloqué. voilà mu ngoog BRT. non man gis naa ko man bi ma déggee Toussaint dama dem xool man noonu laay dama dem xool page xool moo war a xew ma xool ma ne ah kon am naa saa waay kon lii lañ koy woowee Pape Alé Niang xam naa live yi la la Pape moom nekkul koo xamante ne saa waay. day dem ko sa bopp loolu waxoon naa Pape ko woowaat loolu na. Hmm. ah waaw loolu waxoon naa ko bu yàgg Pape kuy dellu gannaaw moom koy bàyyi ci li mel ni wala euh, musiba mën la cee fekk moom kuy dellu gannaaw ku xam Pape Alé Niang ak fi mu jaar noonu nekkul kuy dellu gannaaw quoi wax dëgg ne yàlla moom noonu la dafa am ñoo xam ne seen personnage c'est comme ça ils ne peuvent pas reculer ils sont comme ça moom c'est-à-dire ne fii boo fi jaaree moom day def laayam nee ma ñu ma naan sax am na ay nervis yi posté sama wetu kër mais man loolu en loolu du essentiel ci man kooku sëñ bi kooku du question day xaru loolu la mel il est comme ça. mais nag am na koo xamante ne ni moom moom laay jeexale sama émission donte ne doo ci bëgg chaque jour di wax waaye di nga ci wax de sëñ situation bi toll mooy ku ni Karim Meïssa Wade tamit. Karim est-ce dina ñëw. a ah, am nañ ci yaakaar de. ñaari nit wax nañ naa fi benn bu PDS de mu ne ma léegi bientôt. déedéet oh oh ñooñu nañu bàyyi bàyyi PDS ma ko la nañu bàyyi Karim warul mu ñëw ñaari nit wax nañ ma ko surtout kenn ki kooku musuma wax lu dañ ci politique musta dañ moom mu njëkk a wax ne ma di nga déggaat bu mu joon dina génn livre waxoon na ma ni tamit à soixante quinze pour cent. début juillet danañ jàpp Sonko mais xam nga am na information yoo xamante ne bu bu amagul du ma bëgg di ko mu mel ni ay nguur ma yónni ko waxoon na ko à 75 pour cent début juillet danañ jàpp Sonko. Hmm. waaw ñu jàpp ko fin juillet. kooku kan la mu. waaw ah, déedéet yii il est très informé très introduit kooku Macky Sall rek laa doon gis mu koy wala <laughs> bu koy fréquenté xëy na peut-être téléphone la ñuy wax mais fre muy ñëppay dem hmm, bérébam boobu. Hmm. ah il est très introduit kooku. kon moom daal njortu ngeen ne ci lim la wax. man de jàpp Karim moom man jàpp ni. man man amoon naa info bu ma doon wax ne ma. il devait venir reçu fan mais bon xam nga da nga dul xam quoi exactement mais <tsk> Karim de ta taay Karim Karim est-ce dégg na wolof Karim mii <tsk> Karim de. yaakaaruma de toute façon daal moom moom candidat bi doon suscité espoir moom comme gars yi fexe ba def li ñuy def ah attendons de voir de la suite mais yaakaaruma ay Karim Wade ak yi ba pare aussi tamit Karim Wade waaye saa yi bu ñëwee ban espace lay occupé sax ban espace ban ah politique non ban espace aussi saa yi politique si mënoo toog ay des années pendant sept ans tu es absent du pays je pense bien 2016 la fi jógee noonu. Mhm. ah. Mhm. yàgg na de euh, parce que après moom ci la ñu entamé le dossier Khalifa Sall le 1er janvier 2017 je pense bien donc euh, yaakaaruma ni mu ñëw fii defi grand grand chose de je le pense pas hein. mais mais mais man fi ma fi may fi ma koy jeexale mooy triste nag euh, nouvelle. Mm-hmm. par rapport ak démb manifestation yi. il mm-hmm. y a le ministre de l'intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome qui annonce bon ne ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan donte ne ñu ngi wax. ñett éventuel troisième waaw. nu ñu koy wax de waaw mais ñoom ci seen communiqué bi ñaar ñi la wax déjà le fait benn sax loru ci. waa léegi deux mille vingt et un mille vingt trois jot a faatu boo leen toppee Sonko moo leen faat ñu téye Sonko ñaar faatu kan moo leen faat. démb ñi faatu. waaw ah, kan kan moo leen faat Sonko nekk ci benn. démb de nekkuloon ci benn. sama gars yi daal tëj bi ñu ngi noonu rek. ñu ngi noonu rek dañ ne deux mille vingt et un deux mille vingt trois ñi faatu boo leen toppee loxo OS la ñu tënk OS lekkut naanu ñu tënk ko fañ ko tënk am ñu faatu taw bi may ñëw booy ñu ngi doon manifester man man démb damaa rëcc parce que damaa ñëw ba vingt six bi noonu booy da ngay jékki-jékki ñu mel ni benn lox benn colonne di génn ci koñ yi ma taal dara wëri dugg ci mbedd yi kii yi dem ñibbi léegi ñaar ñi faatu kan ma leen faat Sénégal c'est dommage quoi fi ñu toll nii yow defoo enquête defoo dara dara dara dara. enquête yi ñu diggoon nag. waaw ban enquête. ma bàyyi ne woon na ñu mars bi passé juin. non ñoom dañ ne daal li faatu loxo OSN ci démb OS moom ñu téye ko am ñu faatu waaw léegi nañ ñu wax ñooñu kan ma leen faat. mais sëñ bi Sénégal oh Sénégal kañ lay tegu ci yoon man xaw ma réew mi kañ lay tegu ci yoon ñun bu ñu demee ba ñun ak ñun ñu ne ñun on est un pays musulman nit di dee kenn du ci wax dara ñun ni ñuy ñi ñuy fàttali yaa ngi dégg un pays musulman ak li ci alxuraan wax ñun ni ñuy fàttali suñuy devoir par rapport au droits humains aux droits de l'homme mooy ñi nga xamante ne xamuñu sax alxuraan wala bu ñu xamee jànguñu ko gëmuñu ko Hmm. dañoo am problème suñu bopp ñaar ñii xanaa duñ ne OS loxo mu ngi ci de. yàlla na leen yàlla xarale non de non après nañu génne nañu génne communiqué wala ñu defaat conférence de presse ne ñaan ñi loxo diw moo ci ne loolu moom sañ ñu ko wax moom. waaw ah, fu toll ci ñu yoroon armes yi. waaw ah, ma ñu ngi ci dëkk bi. numéro 9 boobu. ah. mais tawaay. Euh, Sénégal Sénégal daal. sëñ réew mi ci boppam. mu amatul yaakaar quoi c'est ça le en fait c'est ça le drame cest à drame bi mooy réew mi mu amatul yaakaar yow tu penses que ni ville morte bi am démb ak bi nar a am tey te boo deful ndànk dana am suba ah parce que on veut liquider un parti politique nga yow tu penses que des milliards qu'on perd comme ça nii nii nii mais tu penses que loolu yoon la démb ko mun la man maa ngi télétravail déw ma sama mbir génn ma man mi risque bi ci ay koñ laay jéem a dugg taali détresse ak saa yi ñu ma xamul ñoom au même moment ñu ngi toog ci seen oto yu baax gën ñoo baaxi oto yaa ngi dégg am seeni sécurité yu doy am xaalis bu bari mhm. imagine tey jii pendant trois jours essence amul hmm? bi may ñëw maa ngi xool sama équipe maa ngi naan yàlla na ma mën a yóbbu sax euh, bureau ba grève soixante douze heures tu vois ñoom au même moment sëñ bi gars yi ay mbàdde essence a jit wi seen 4x4 yi plein bi c'est plus de cent mais mais loolu loolu Mansour des milliards lañ nar a ñàkk c'est-à-dire réew mi. trois jours sans carburant wul ci yoon. du dëgg du yoon. ñaata station service ñoo nekk Dakar parce que yi ñu leen yàqaloon deux mille vingt ans soixante douze la woon euh, janvier cent la ñuy yàq ñaata station service ñoo fi ne ak station service activité connexe yi ñuy def y a des mini showroom y a des supérettes et cetera cetera. y a des techniciens de surface qui am na ñoo xam ne ay journaliers lañ trois jours duñ leen ko fay et cetera sëriñ bi réew mi moom ci boppam teguwul ci yoon teguwul ci yoon wallahi teguwul ci yoon làq doom dóor doom moo fi nekk làq doom dóor doom autorité yi war a wax kenn du wax du religieux du coutumier du kenn ñun bu ñu demee ba dabaax jóge fi depuis 1997 euh, saa bu ñu tolloo fii ndax baax la ñuy teg. ñu tegaat discours am. te am ñu ko doon. sëñ bi c'est un problème ce pays. man moo tax dama cee noppalu maay sama sëriñu bopp ba ma waree jàng jàng naa jeex na li ma alxuraan wax. laay déglu ak xadis Mansour wuy ma Mansour ca ca yàlla laay dund point. ca boobu noonu Ziguinchor bon déjà maire am mu nga ci prison. Euh, xam nañ fi ñu jëm di mooy lañ def Khalifa Sall rek fa lañ jëm di <laughs> loolu nga may laaj. waaw <laughs> fa lañ jëm di. nuñ fay jëm. yow lan moo la mën a bettaat ci li ci des yow lan radiation. kon dañ koy foqati ci moom. ah muy suñu kanam. cest à mi moo yoon dëgg du dëgg du yoon. cest li nit ci réew mi du maanaam Macky Sall. non Sall li muy teg ay opposants bi ko ko Abdoulaye Wade doon teg dama koo ñaanal dama cest man dama nangu injustice du yoon. cest à loolu du yoon c'est normal. mais da yoon tali c'est pas du tout normal Macky Sall da doon ànd ay di manifester place de la nation ay garde corps di ko évacuer di ko nëbb pour lacrymogène bañ koo laal et cetera et cetera te yow pour nit am manifestation rek sëñ bi dañuy dugal rejeté dugalaat euh, et cetera et cetera mais attendez quand même loolu du yoon ah doy na waar. mais yow Sénégal Sénégal daal sëriñ bi trajectoire bi mu jël. bu ci gaawul génn sëriñ bi bum la metteeti xale yi di jël gaal gi bum la bettati sëñ bi nit ñi seen yaakaar di gën a yàkkeeku bum la bettati élection jot taux d'abstention bi mel ni lu ma xamul te nekk nii day nekk risque bu doy waar risque céleste et terrestre presque ngay xalaat naan ngay def politique te c'est pas normal du dëgg du yoon France bu ñu mënee fal ko am 39 c'est parce que le jeu il est ouvert là c'est parce que un autre moment droite gauche ñu baal ma ci kàddu bi mais c'était presque de la du voilà du n'importe quoi kenn yaakaaratu leen pas du n'importe quoi mais kenn yaakaaratu leen woon am keneen ku jógee fële créer presque une troisième voie de même que centre si nit ñi gëmatuñu leen woon ñu créer troisième voie fii mais socialiste fi nekk libéral Macky il est social libéral il est libéral social à la fois politique dans parce que dafa jàngee ci Wàdd ki lenn rek la gën a réussir mooy nu muy def pour faagaagal un sax loolu moom da koo mën yaa ngi dégg léegi am keneen ku jóg ne ko gisewu ma noonu mais gars yi taxaw foo ko ñuy taxaw mais ana ñi taxaw fii ne bu dee Ousmane Sonko dañ ko war a rey senegal ne jàmm nañ ko rey mais ñooñu ñooñu ko ñooñu procureur déggu mais mais Mansour gis nañ dem bi communiqué bi waddee Euh, ñu gis ne rak tak waa Pastef tamit lancé benn benn. bureau politique bi waaw waaw bureau po benn waaw. après ñu naan.